di leen jéglu si di leen jéggal di am mbégte lool ci seen teewaay ci mairie Est euh, solo bi nag mooy dañu convoqué woon directeur ak directrice d' école bi d' école yi yi nekk si ñaar fukki école yi ak benn pour euh, jox leen matériel scolaire yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour mën a réussir année scolaire 2020-2021. ki nga xam ne moo jiite maire bi di suñu kilifa monsieur le maire Bassirou Diop mi ngi am mbégte nag di profito ci ndaje mi di tatagal ak jaajëfal jàngalekat yi muy directrice yi muy directeurs yi mais ci seen kanam mu jiital ci suñuy jiit ñoom ñëpp di inspecteur Arfan ndax yëg na ne euh, donte at mi daaw amoon na lu ci laxasu muy jàngoro jooju nga xam ne ba léegi mu ngi fi toogandi di Covid 19 terewul jàngalekat yi laxasaayu nañu ànd ak détermination pas-pas dem ci école yi jàngal xale yi ba examen yi am ci jàmm ak salaam ba ñu am ci résultat yi ñu ci am loolu nag mu ngi ciy sant di gërëm jàngalekat yi di leen ñaanal eh, di leen wan ni lu mën ci gunga leen rek ci wàllu jàppale leen ci wàllu matériel incha allah dina ci taxaw. bu dee atu ren mi nag 2020-2021 li nga xam ne moom la nësër ci matériel dafay taxaw taxawaayu euh, école bu nekk dina mën a am ci wàllu cré cré cré blanche te cré bi nekk matériel boo xam ne dañ koy soxla lool 92 boîtes bu dee craie couleur yi na toll ci 46 boîtes ñeent fukki boîte ak juróom-benn bu dee kay 100 pages wala kay 32 pages bu ci nekk dina am. na am ñaar téeméer ak juróom fukki kaye bu dee kay cinquante pages yi na am ñeenti téeméeri kay cinquante pages règle yi compas équerre ak rapporteur bu ci nekk di am juróomi unité bic ak bic rouge bu nekk di ci am ñeent ñaari téeméeri bic bu dee bic bleu bi na am ñetti téeméer ak juróom fukk loolu daal mooy li nga xam ne ren moom la natt ngir jox ko école yi xëy li ma bëgg leeral foofu rek mooy lim bii ma joxé ni li ëpp ci école yi mom lañu ñu am xam nga dama né ñaar fukki école ak ben waaye xam nga né école yi tollu wuñu tay am na ci ñaar fukki yeeg ben surtout bi mu mujjee juddu tay dafa tollu ci ñett classe kon koku ay lay yéwén mënul yem ak ñi nga xam ne am na fukki classe ak ñent du tollo donc lim bi ma lim concerné wul école boobu d'ailleurs soo parcourir les dispositifs bi nekk fii di nga gis ne école boobu liñ ko nattal moo gën a tuuti waaye lu muy tuuti tuuti ëmb na ko moom ci ay soxlaam ba sax dépassé na ko foofu sax ma ci potoxlo di wax ne école Momar bi mu concerné incha allahu rabbi programme 2021 bi ñoom nattal nañ leen aussi yeneen ñetti salle de classe ñu leen di tabaxal fekk si ñett ya fa nekk muy juróom-benn nekk cycle complet loolu aussi ñu sóoraale ko ci natt boobu aussi école alilo Lo nattal nañ ko à hauteur de 35 millions de francs ci euh, euh, réfection yi ñu fa war def dafa nekk déjà ci ci ci existant ci ci wàllu bâtiment am nañu yéene daaneel ko reprendre ko defar toit bi ensuite carreler salle de classe yi loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne mairie Thiès Est euh, ci ndigalu Pape Diop Bassirou Diop ñu gën ko am turu Pape Diop ak ñi mu àndal di liggéey natt nañ ko ren jëmale ko ci école yi nga xam ne ñoo nekk commune Thiès toll ci ñaar fukk benn maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen nuyu suñu bopp te mooy nuyu suñu inspecteur monsieur Alphand Seck l'infatigable Alphand Seck ñu ngi koy nuyu eh, di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam ci liggéey bi ndax ndamam mooy suñu ndam suñu ndam mooy ndamam. yàlla defal ñu réussite comme ni ko monsieur Sos Sarr waxee te mooy. ñu delluwaat suñu place ndax Thiès liñ ko xamee woon mooy nekk premier toujours ren nag ñu jël deuxième deuxième baax na de waaye premier moo ñu gën a yàlla nañu yàlla may ñu delluwaat suñu place. bi ci des mooy ku la defal lu baax nga gërëm ko sant ko wax dëgg yàlla dañuy gërëm mairie Thiès Est ci njiitalu Pape Bassir jóob ah. li ñëpp di def de bu man du ma ne yéen a ngi def lu gën loola de waaye yéen a ngi def li ngeen mën ñu leen ciy sant di leen gërëm ndax kenn du teg lu mu mënul ñun day doy loolu doy loolu ñun li ngeen ñu jox rafet na kontaan nañ ci ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu yokk ba ngeen mën a dolli daa waxoon nañ ko fi nag ne woon dañoo am ay doléance directeur yi à chaque fois dañ koy dañ koy répété di ko waxaat te mooy suñu ndox suñu courant ak suñu gardien yi école yi të nañu jaaxal nañu de xamuñ ñu nuñ koy lijjantee te yaakaar nañ leen ci newoon nañ fi daaw donte du ngeen mën a fay lépp it mu am benn taux forfaitaire rek boo xam ne da ngeen naan ndox mi nu mu mënti toll ñun de jox nañ ci ñaari junni courant bi nu mu mënti toll joxe nañ ci ñaari junni gardien bi lu ngeen koy mënti fay joxe nañ ci ñaari junni lu mel noonu nga xam ne du ngeen ko paase yéen doon nañu dimbale lool at mu ne nag directeur répété loolu bëgg nañ ñu ngeen jàppale ci ni ñuy jàppee. ci école yi ndax dañuy faral di wax ni yar ku xam yar xam ne loo ci def ci alal jar na ko kon secteur éducation ñi ciy liggéey war nañ leen jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax ndax bu xale yi yaroo réew mi mën a jëm kanam bu ñu yarwul réew mi day deltu ginnaaw kon ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ñu yore yaru xale yi war nañ leen a jàppale oyofalal leen liggéey bi te oyofalal leen ko mooy kom nii jox leen ay jumtukaay ndax jumtukaay yi moom traduire mu nekk résultat ku amul jumtukaay doo mën a am doo mën a am résultat bu baax kon yéen ñi ñuy jox lii ba ñuy mën a jël ay deuxième ak premier ñu ngi leen di sant leen gërëm wax dëgg yàlla di leen xamal ne directeur yi kontaan nañu waaye daal ñetti doléance yi bu ngeen ñu ci mënoon jàppale dinañ kontaan daaw jéeg am na lu ngeen ñu accompagner woon directeur bu nekk am na lu ngeen ko joxoon daaw renouvelé nañu doléance bi waaye ñëwul directeur naa leen jottaliwaatal seen doléance boobu te mooy ñu accompagner leen ca bureau ba kenn ku nekk boo bëggee jënd nangam ak nangam nga mun koo jënd boo mun a def yenn yenn yenn dépenses yi comme ay ay cartouche informatique ak yooyu matériel informatique yooyu dafa cher ngeen jàppale ñu ci. li daal la ñu waxoon ni ginnaaw bi ñu leen gërëmee sant leen naa leen ko jottali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gërëm naa sant naa ñi nga xamante ne dañ nekkoon ak ñu retraité wala ñu affecté leen feneen ku ci mel ni soose saar ku ci mel ni Modou Fall bi nekkoon dem ba Jaxate ku ci mel ni Yacine Gaye bi nekkoon Fayu ñu ngi leen di ñaanal seen retraite yàlla na leen jik te barke mais naka noonu ñu ngi ñu ngi tatagal di wax axlan saxlan euh, ñi nga xamante ne yàlla def na ñu ñëw wuutu si leen am na ñoo xam ne dañ ñëw muy mel ni directeur Sall mi toog Baye Diallo euh, Thiandoum euh, voilà fay Amary Diop et cetera ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal seen poste yu bees yàlla na leen ci yàlla may ndam yàlla na leen jik mais wax ne daaw ñëwoon nañ fi ñaari yoon beekul tijjee pour fourniture mais ñëwaatoon nañ fi bi nga xamante ne dañu waroon reprendre après corona bi mairie bi dugal loxoom bu baax jàppale école yi jàppale leen ci masque jàppale leen ci gel jàppale leen ci lave loolu ñu leen ciy sant di leen seedal ne monsieur le maire li ngeen di def ni sànniwu leen ko ndax fi ngeen ko dugal ci ay loxo yu wóor ngeen ko teg directeur d'école yi ak jàngalekat yi ñu àndal ñoom dañuy jël lii transformer ko résultat mooy xale yi seen jàng day day day day bën ma leen di fàttali monsieur le maire ne leen pandémie bi feebar bi mbas mi ba léegi moo ngi fi yàlla na fi jógeeg jàmm mais comme jógewu fi mu sunu ministre bind na lettre gouverneur jaarale ko ci wax leen ngeen continuer di ñu jàppale di jàppale école yi ñu ngi leen koy fàttali. Euh, directeur Dieng tudd na fi léegi lu jëm ci ndox euh, courant ak gardiennage ñuy wax ne lépp lu ñuy def yéen ngeen war ko def texte moo ko tënk mais texte bu nekkee aussi nit day taxaw xool nu mu ko jëmale loolu moo tax ñu leen di ñaan ngeen continuer di ñu accompagner di ñu gunge comme ni ngeen ko doon defee. di wax ne inspection engagé wu na pour taxaw sen wet def liguey bi may len di wax ne waxoon nañ ko ci bi ñuy ci DOB bi bu subaa dinañ ñëwaat inshallah ci DOB bi fàttali len bu ñu amee école yu ñu wara parrainer tuddee len ay nit ñu fi nekkoon ñu bax wala ñu fi nekk ba légui ñu def ko. di wax ne fii ci Thiès dafa am effectif yu pléthorique wanté effectif yu pléthorique yoyu dañuy fexé xam nañ ne nekkul ci seen budget ñu wuti ay moyens ay partenaires pour bu ñuy tabaxati ñu tabax en hauteur parce que surface amatu fi di fàttali ne yéen dugalu leen seen loxo rek ci fourniture wala ci matériel anti Covid mais daaw bi bi mu tawee ba école yi ñu am jaaxle fële ci Lamane Ngom ak ak Boubacar Ndiaye Silmak yónnee ngeen fa ndaw jàppale ñu bañ def grava mun a yegg ci biir. loolu lañ ne woon dina leen ko di di di di tudd ci directeur yu bees yi. Eh, maa di Cissokho mbaa duma kii parce que suma gàmmu la moom moo ñëw alelo di di di tudd également monsieur kamara moom moo ñëw El Hadj Ibrahima Sarr c'est vrai que Camara waaw ñu gisante woon parce que passation yi gars yi ñoo fa ñoo yàlla na leen yàlla defal ndam fi ngeen nekk di leen wax ne fi ngeen ñëw nii ay nit ñu baax ngeen fi fekk ñu am pas-pas mën a liggéey mànkoo nekk benn donc yéen da ngeen ñëw dugg seen biir rek ànd ak ñoom eh, yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na ñu yàlla jàppale yàlla jëlee fi feebar bi yàlla na yàlla def ñu dugg ci année scolaire ba bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin activité bi nga xam ni chaque année dañ koy def ma dellu wax ni li Samba si wax léegi ci ci IEF arfan bi ñu dinañ ko dëggal parce que gis nañu euh, pas-pasam engagement am ak détermination ci lu jëm ci mbirum jàng ak jàngale. Nous avons également à chaque fois que nous avons occasion de ak nous suñu nous avons tourner ci dara secteur de l'éducation donc nous ñu que koy seede bu baax di sant di également directeur d'école yi ak enseignants Nous xam nañu ne ñun moyens yi ñu am mais malgré difficultés yi am chaque année nous jox des résultats convenables loolu franchement ñu ngi leen ci bu baax au nom du maire euh, di centres également di argent et maire yi fi également les élus locaux Nous avons aussi activité de chaque année ñu def ko fourniture d'appeler ko école yi mais nous savons un ni problème l'école. école yi a rek si joxe ay fourniture bien que nous avons appelé un peu sur la question pédagogique mais nous avons ni effectif li war deug moy ñu tëral ben programme de construction et de reconstruction de nouvelles salles de classe comme diko IF waxe Nous ñu construire en hauteur mais loolu mo aussi même ñun buñu amé pas-pas bi ak volonté bi aussi li ñu am ci nous xeyna doyul fi ñu Nous sukkandeku sukkandiku biir ñëw état bi dans le cadre du programme de Pakassel amna lu ñuy dimbalé chaque année mais si nous avons 100 millions ou 150 millions dans le cadre du PACASEN, la mairie 50 millions de budget fonds propres, dont le de 200 millions. Mais si nous avons répondu à l'école, ce moment-là, nous avons parlé avec les enseignants et les directeurs d'école, nous avons parlé école, école. Chaque année, nous avons 200 millions, c'est-à-dire construire de nouvelles salles de classe à hauteur. Ça nous permettra en 4 ou 5 ans au moins, nous ramener effectif au moins à 50%. Je pense que enseignants aussi là, avec un effectif pléthorique, il est très difficile de faire de très bons résultats. Mais malgré l'eau aussi, chaque année, sur nos communes, nous constatons que les enseignants, avec l'IF, avec deux directeur de colis, nous faisons sur nos communes, les meilleures communes en termes de résultats. L'eau également, nous sommes dilenti leen au nom du maire De wax ni aussi am nañu chance bu reuy que ci bureau municipal bi aussi ñu am ci ñaari enseignants yo xamni aussi muy man mii di wax ak yeen ak le deuxième adjoint El Hadj Cissé ak le président de la commission Socé je pense que nous bolé suñu ay ñun ñëpp ak les enseignants ak l'IEF le maire également wax naa ku jox importance le secteur de l'éducation la xëy d'ici 3 4 5 ans dinañu mën ramener un peu les effectifs n'est-ce pas à cinquante pour cent ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp